salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki daara yi As-Samadiyya ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar eh, di indi kàddu yi seede ci Cheikh Abdourahman eh, te seede ji itam ci waxtu bi du lu yitteel ndax borom xam-xam yi dañuy wax ne doomu aadama bu wàccee liggéey ay bisu yu njëkk ya sunu borom day wax ne lem téere yi yi ngeen bindoon ci moom. te ngeen diglul ma lan la mbindéef yi di seede ci moom moo tax jamono bi seede ci lu am am solo la euh, sëñ Abdourahman man dama koy jàppe exemple bu mag ci murit sadex ak murit sadex waaw man daal ak taalibe bi daal laay laay laay laay gis mu jëmb ci moom biir ak biti léegi nag biiru taalibe da koy fekk xam-xam mu doon borom xam-xam bu mat bu mag a mag a mag a mag waaye itam dañ koy fekkaat li mu taxaw waxoon bala ñoo xam sëriñ bi dañoo dëddu àdduna ak dëddu àdduna gu mat sëkk dañ ko gis ci moom gis ko ci leppam ndax ak àggoon na ci xolu mbindeef yi foo xam ne bu ko àdduna rek yitteeloon waxtu bi lu ne bàyyi na ko fi waaye itam ngay gisaat ci moom ak woyof gisaat ci moom itam ak cawarte gisaat ci moom itam xër ci mbindeef yépp jariñu waaye dafa am ku ma mas a nettali ku ñuy wax Saliou Niang mu jël ku ñuy wax Baye Serigne mu wax ne mas sama dégg suñu soxna bu mu wax ne ab murid dëgg day yor ngëmug Cheikh Ibra ak ak diine Sëriñ Mbàkke Buso wax ne suñu soxna bu moo waxoon loolu kon ñaar yooyu boo xoolee moo daje ci Sëriñ Abdu Raxmaan ak ngëm ci Sëriñ Tuubaa da nga ko jàppe Baay Fall ci diine ak ci jaamu yàlla ak fonk waxtu fonk jàkk ji da nga koy misaal ci na ko dëgg-dëgg ak murit a am lu ci mat bàyyi xel lu bari mooy si abdu kenn mosu koo dégg mu woote lenn lépp dajale ci moom xam-xam bu bari nangoo jaamu yàlla jàng ci Sëriñ Abibullah nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko dalal boppam dégg nga ko Sëriñ Abdul Ahad fonkoon ko. waaye mosu ko dégg mu woote lenn ba mu ne ci baas di wax di woote ci boppam xeeti wilaaya te lépp daje ne ci moom kon war na caa dégg ne woote woo ak wilaaya lu ma te def ndànk la te jamono bii bari na lool nit koo xam ne tollu si Abdu Rahmaan sax ci wee ci xam-xam ci lenn fu mu toll ma ngay woon nit ñi di waxi wax di def yëf nañ ko jàng yi dundu Sëñ Abdu war na jàng itam ne am murit ak dundam lépp xitma la war doon xitma xitma mooy def effort joxe lu nit ñi di jëriñoo Sëñ Abdu Rahmaan euh, xam-xam la ko suñu boroom joxoon mu tàggat xam-xam bépp ci jëriñ nit ñi mu tàggat xam bépp ci jëriñ nit ñi fu toll mi ngi def ay audio def ay waxtaan euh, man démb diggante démb ak tey damay faral di wax ne Sëñ Abdu Rahmaan ak Sëñ Sàmbaay euh, bokkoon nañ ci boroom xam-xam yi réew mi yi gën a réussir ndax ñoom dañoo digg seen jamono. Euh, kilifa gi ñu daa wax Cheikh Anta Diop lool ci fànn yëpp fànn yu bare bari jàmbaar la ca lool doonoon ku taxawoon lool ci réew mi ak nit ñi bëgg ñu jariñu waaye man léeg fi ma koy eh, critiquer waaye du critique bu dingat waaye critique bu rek wane si jàngat ci moom mooy ne dara xeex bu baax langue français di wax ne mooy naxe yiñ Euh, doxee suñu digg ak réew mi suñu digg diggante woy politique ak nit ñi waaye moom da gis ne la mbind lépp ci langue français wala ko bind ay seen man xam kàttanu ku mën a bind la am xam la ku dégg arab la waaye xam-xamam lépp daf ko def ay audio ay waxtaan ay cachet nit ñi jëriñoo ko Sëñ Samba defee loolu dafa ñu fa ci war a déggee Sénégal nit ñu ay liirkat ay diglukat lañ te borom xam ne dañuy wax ne xeet woo gis mu jëm kaw. waxkat yi boroom xam-xam yi moo ko jëmee kaw waaye du bindkat ya ndax bind dafa am lu mu laaj daal lu bare bare kon war na cee jàng am murit lu mën a am moo xam alal la moo xam xam la da ko war a tàggat jëme lu jëriñ nit ñi jëme ko lu jëriñ nit ñi sëñ Abdou res naa jàngee ci moom lenn mooy sëñ Abdou ku amoon xam-xam la ko amoon seetlu la waaye kenn mu sa dégg ci ay waxam baa ci ay euh, waxtaanam mu jam kenn baa mu jam lenn waxtu wu nekk day yittewoo lu jëriñ nit ñi loolu la am lu ñu ci war a jàngee critique bu bari baaxut critique bu baree bu bari surtout jamono bi ñu toll critique bi dafa bari lool fu ñu toll ñu ngi critiqué critique bu bari day day waral nit ñi jàpp ne dara baaxatul si ñëpp du kenn mës koo dégg mu critiqué lenn ba kenn dafa yitte woo woon rek jëriñee boo xoolee ku mel ne Sëñ Fallu loolu mu doon aw doxinam Sëñ Abdal loolu mu doon aw doxinam Sëñ Saalif noonu mag ñe seenu doxin Sëñ Sàmba Mbay kenn mu wax jënd wax ju jëm kenn waaye jënd wax ju am da nga koy dégg ne groupe sangam lay waxal sangam lay waxal loolu noonu dafa a bàyyi ñoom dañ daan concentré wu rek ci lu jëriñ nit ñi te gis nga ak lépp noonu la wax na ba tey nangami téeméeri audio yoo xam ne def na ko ci ay ci wax waaye kenn gaañuwu ca loolu lu mat a dun dund la ci aw ci ci ci lu mat a jële la ci ci ci am jàngaleem ñaan yàlla mu taas ci barkeem te dolli ko leer dolli ko ngërëm donc yàlla dolli ngërëm loolu ko yërmande loolu ko ak njëggal ndax yooyu mbi ay baat la yoo xam ne kenn du ko doyal yàlla ko yàlla doolu yërmande yàlla ko yàlla doolu ak njëggal yàlla ko yàlla doolu gërëm ko yàlla doolu leer waaw yàlla yàlla yokki leeram ndax baat yàlla baat bi yàlla yàlla yokki leeram li tax ñu koy ñaan mooy doomu dama boo xasee faatu ruu la te ruu ci leer lay dund moo tax ma ngi daal ko baat bu baru yàlla yàlla yokki leeram di sant bu baax tam borom daal di si Abdou Samad di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah